si ci kër biir Cheikh al ngir fekki fi seen ndono ñaan leen ngeen dem jëli seen ndono waaw noonu rek la toll waaw waaw waaw noonu la toll waaw ñu ngi ànd itam ak sunu mbokki daara ñu ngi ànd ak Mouhamadul Kurdi yu gay eh, eh, Samba Jenn Baara mag mu siiw la dégg ngeen turam moo ko jur tudde ko imaamul kurdi yi waaw góor gu sañoon la te te dëgër fit te am xam-xam ñu ngi ànd ak alxaaj Mouhamadul Mokhtar Ñang mooy ilimaani zawiye Serigne Babacar si bu mu juddoo di liir te tuddaguñu ko sëriñ Babacar def na ci moom xasida mi ngi ci diwaanam fa tabaarakallahu ay mbokki yaakaar rekk lañu àndal ñu ngi ànd ak alxaaji ali yu yàgg jaañ ca ndakaaru ñun miine ko ci turu al yàgg jaañ ci màggi ndakaaru yi la bokk ku xër ci diin